démb rek maa ngi dégg ne suñu njiital réew euh, jotoon na dem aéroport ànd ak euh, ambassadeur bu Chine ak le ministre de l'enseignement euh, le ministre de la santé dem rek réceptionné 2000 vaccins yi nga xamante ni France jot nañu ko may donc mu nekk vaccin yoo xamante ni dañ koy jagleel nji kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bi ak personnel de santé yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en situation de comorbidité ça veut dire ñi nga xam am nañ lu jëm ci 60 jëm kaw. sama xalaat mooy état bi def na benn effort bu ndaw mooy ñëw na léegi nag li may inquiété mooy nan lay demee après waaw suivi bi mooy sama problème quoi parce que comme que fii dafa bëri yoo xam ne leerul ci boppu Sénégalais yi yenn yi borom doole yi mun nañoo taxaw ñun ci kaw néew doodu doole yi njëkk ñu am vaccin yi te logiquement dafa am nu mu war a doxe comme ñoom li ñu wax bu fekk ne gëm nañ ko médecin yi ñooy njiitu ak euh, ñu màgget ñi ak xale yi xale yi euh, yu vulnérable yi ak ñi feebar bu dee fekk ne noon lay demee aussi ah ñoo xam ne état bi liggéeyam mat na. waaw dégg nañ ko nag xool nañ ko ci à travers les réseaux sociaux xool nañ ko télé bi gis nañ président demoon na defee cérémonie de réception bi mu nekk lu ñu rafetlu quoi parce que tamit mbir bu amee àdduna bépp jug da jug comme ni àdduna bépp jugee. vraiment loolu ñu koy rafetlu et puis di ñaan tamit bu yegsee yàlla na nekk loo xam ne lu gën ci ñun la wala nekk yàlla nekk tamit loo xam ne luy jeexal feebar bi la quoi. alors man euh, en tout cas parce que vaccin yi newul loo xam parce que euh, lu ñu doon bañ mooy sénégalais yi nekk ay cobaye mais sénégalais nekkuñ ay kobaay maanaam vaccin yi vacciné nañ ko d' abord réew yi nga xamante dafa la jóge euh, njëkkee nañ ko ci population réew yooyu noonu donc jàpp naa ne aussi. Euh, OMVS euh, maanaam organisation mondiale euh, de la de la de la santé homologué nañ vaccin yi ce qui veut dire que am na ay médecins expérimentés ay médecins patriotes yoo xamante ni ñoo ci instance décision jàpp naa ne ñoom bu ñu demee ba décider ne yi kat askan bi maanaam monde bi war nañ ko mën a utiliser donc jàpp naa ne vraiment bu fi ñëwee population bi aussi ñoo war am maturité am aussi conscience ba waral ñu dem sax ñoom seen bopp ñu dem vacciner jëw ji xam ne aussi jàpp ma ne état bi tamit am nañ euh, loo xamante ni dinañ ko ci xaar wala di ko ci dox ah, ba mun a euh, vacciner seen population ba vaccin boobu jural leen ay guuta